jàqal nga Ibrahima Diouf ka nga daan noo sañuy koy wax Souleymane kaabal mi bàyyey mbambulaan waaw waaw waaw sirul ak ñëw na soodaan si di warama amul kitaab kitaab mbër mi ko doon tëril ba say maam barama yaay roo la fan si di warama ngeen di wisit ndax lam ngeen ci Sidi Baraam li ngeen di woote nag dëgg la Baay Baraam awlu soo daal soo daal soo daal ragal leen yàlla tey ban leen di fit di fit ku xamul fit gi lam ci wayun Sidi Baraam ku fit gi jàpp mbekk la ci weddi la xaw la ma ne mooma mbindeef këram way baay baram jàng way jay borom muy funki ni band buñ dóor wowu jàng noon la gëm leen si ni baram jàng kat bu déggut lam jàng dama yërëm am tax du dégloo jàngi leen fa baay baram wax joo sosul jar la yëngoo loo di rek ni ngoo kan gàcce la a dëkk gëm leen bàyyi ba ma ay na lu xulum ba muy wañ makka mu ngay dénk doom ya sa xoole na roy ci yeneen bàyyi barama ma nga teew bisab kërëg malaaka yay sikar tanaan dañ lay gunge ñun ba makka suñu barama ba barambare tàggoo ji kawlam ndaw lu neex a xool mbedd moo seen nit ña def loo jëm ba barama ba samsu sumoos jubee kër baayam xabru baa ngay riir mama ji ñes ñes teew nga ñaanal bay barama sa sam sa sumoos ju bee kër bay ba xabru bay ngay réer mama ji ñes teew na ñaanal bay barama mar sa kawlax ba fa bàyyey jaar nit ñe jéggi njaay ma mar sa tëj ñu uti gaar ba jëm ca barama a bay di wàcc ci ci jaar keroog yow ma yubaasuna baay barama chef de gare ba jug na la xasaayu tanaan pare leen grand marabout bi bonjour su di barama asab su sumos di rentre ca terrain ba daw lu neex a xool ba sab keroog doy na kéemaan baay barama sanra ma sanaan doucement Marcelen en arrière may leen ko yoon ndax muy janoog su di barama بحر العالمين لم تكن دمي دينوار وقت عدتم نفعل باي برما لا إله إلا الله محمد رسول الله مملن تكوك دمي تريب دو قاچو سبل سنبرما وتريب دو

Gubernur ba tey nga pada gan Gubernur de di téléphoné si sander mari Para lendeng dem gaar ba teeru baay barama colonel ba wal soufflé ba gendarme ya buur dem ca gaar tetu barama laaji omar kanam dakar Para leen sikar leen dem cakar gaar ba teeru barama bi baay di wàcc garak Ndakaaru damay sama ndaay keroog yow ma yóbbaa suuna su di baama tubaab yaa nga ràcc këri kaw ya sandar ma say garde Ndakaaru jël jóg ja furna baay baraama metti William puntin daaru bu fa baye jaar loolay adaratul jamo sudi bam a baay di rentré Omar Kan daw lu neex a xool keroog yor mero insa ay barama ba baay di jugee kër Alaaji Omar Kan Ndakaaru da fekki keroog yow no melaw Jibril sudi bam ma baay di jugee kër Alaaji Omar Kan di jëm ca gouverneur keroog yor na melaw Jibril baay Barama bi baay di rentré sa saboor ba na fekk gouverneur bisab keroog doy na kéemaan su di Barama gouverneur ba ko naan grand marabout loo soxla loo soxla nguur gi faj ko baay Barama Barama ko naan tawatuma dara dama lay yëgal man yàlla xebal na ma makka si di barama gouverneur ba rocci pili ba wurus bindal ko passeport te naan ko doo tàdde makka baay barama buur ban ko naan maa ngi lay seenul ba bu Canada saafin nee na ci ndox si di barama dooti kotte Ndakaaru simili ba noddu kapteen ba naan nuyu leen ma baay barama énergie baay duggee Ndakaaru ndax lu nekk xol keroog mbolam xol yi liw nañ sëdi barama akol ba nga naan alhamdu ñoo ngi sant yàlla ci say mbokk baay barama ko bay ba nga pay leen bi tiral yoon bi gaaw te sëñ gi am na kan tay moo de baraama bu ñu lap ci ba jeex soobu ci biir la karama ya fee keroog nasaraat yi yëg nañ sudi ku dëpp tiit keroog ba soppeeku ba mel ni perkaal fardul jaam rabbi doomaas baay barama mbër mu tol ni gol fukk ko tàggat gisuma lu lay galal diggante fekk wàccee sa sini barama keroog gol fu leer na leeraay boo suufi am kana ko moom baay barama hajam atam hajam tumuranke musa am sodan géej nay am ca fadu makka siri barama ah! daje gaay keroog dañ ne ko nagi ñëw na baay barama xara ira saba ak mar ba ñu sene ba keroog lañ ne ko ñëw na mo ne barama barab basire xam nañ ne la meñ dula la jotur nañ ne yaari min ka baay barama mbokku bur say mbokku tinca ana waa barada ale rasim gëm na yenen sidi barama yam makka mbokki medina ya bañ la gisee gaaw na ci nooy ay bara ay bara en sere ca makka mbokki medina ya bañ la seene gaaw na ñooy nooy bay barama